أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من سرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونصح الأمة ومهوى الظلمة وكسف الغمة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إخوة الإيمان لا بد أن نعلم أن الإسلام دين الرحمة الإسلام رسالة خير وسلام ورحمة وعطف على البشر وشائر الخلق يقول جل وعلا في محكم التنزيل وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال الراهمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء ومواطن الرحمة عامة وقد أمر الإسلام بالتراهم العام وجعله من الدلائل الإيمان الكامل قال الحبيب مصطفى صلى الله عليه وآله وسلم لن تؤمنوا حتى تراحموا قالوا يا رسول الله كلنا رحيم قال إنه ليس برحمة أحدكم صاحبه ولكنها رحمة عامة أجل إن الرحمة أثر من الجمال الإلهي الباقي في التبائع الناس يهدوهم إلى البر ويهب عليهم ريحا بليلة تنعش الصدور وليست الرحمة مقصورة على بني البشر فحسب بل تجري زيلها على كل كبد رتب حتى الكلب قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بينما رجل يمشي بطريق استد عليه الأطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب ثم خرج فإذا كلب يلحس يأكل الصرى من العطش فقال الرجل لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ مني فنزل البئر فملأ خفه ماء ثم أمسكه بفيه حتى رقي فسقى الكلب فشكر الله تعالى له فغفر له قالوا يا رسول الله وإن لنا في البهائم لأجرا قال في كل ذات كبد رتبة أجر mbokk yi ginnaaw bu nu tàmbalee ci tur yàlla tabaraka wa taala di ñaanal sunu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mbokk yi foog ñu ànd xam ne lislaam bii nga xam ne mooy sunu diine diine yërmande la diine la joo xam ne message bu ëmb yiw la ak njëriñ ak jàmm waaye message la boo xam ne dafa ëmb yërmande biir ak biti ak lewet ci mboolem mbindeef yi suñ waxee mbindeef yi nag doomu aadama yi ñoo ci jiitu wasaa'iril xalq mboolem mbindeef yi doog a dugg lépp lu am ruu tey noy tey dund nga daal di dugg ci biir mbindeef yi keroog ba yàlla tabaraka wa taala jàkkaarloog yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne ko dama laa yónni nga nekk yërmande pour xeet wi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa dégg aaya bi keroog la simmeeku jël kaalaam takk ci ndigam yamale guddeeg bëccëg dugg ci xeet wi pour xeet wi mën a sëwe dugg aljanna moo tax moom yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mu ne xeet wi yëpp danañ dugg aljanna ba mu des ku bañ kullu ummati yadxuluuna aljanna illa man aba qiila ya rasulallah wa man yaba ñu ne yonent bi kan mooy bañ a dugg aljanna mu ne man ataani daxala aljanna wa man asaani faqad aba ku ma topp dugg aljanna ku ma bañ a topp yow yaa bañ a dugg aljanna sallallahu alayhi wa sallam kon yàlla ba mu ne yonent bi dama laa yónni nga nekk yërmande pour xeet wi yonent bi yërmande googu la soññ jaami yàlla yi pour ñu amalante ko seen biir ci hadisu amr ibnu aas hadis bu nga xam ne tirmisi nettali nañu ko yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam mu ne arrahimuuna yarhamuhum rrahman ñii yërëme yàlla dina leen yërëm yonent bi yamu ci loolu mu ne irhamu man fil ard ngallawaay yërëm leen ñi ci suuf yarhamukum man fi sama su ngeen yërëmee ñi ci suuf waa asamaan yërëm leen waaye mbokk yi kuy xool tey sunu dund di nga mën a waat ne yërmande dafa jeex ci mim réew jeex takk ci mag ñi ci ndaw ñi ci góor ñi ci jigéen ñi ci ñi am doole ci ñu wér da ngay gis ne yërmande dafay jeex xol yi dañoo wow koŋ dañoo maral dañoo bekkoor yërmande yàlla dakaa rocc ci ruux yi dugal ci liggéeyukaay yi dugal ci oto yi dugal ci biir dëkk bi jonjanteel ak nit ñi dugal ci biir bureau yi da ngay fekk yërmande dafa jeex dugal ci biir hôpitaux yi nga fekk ñi nga xam ne dañ leen di indil ay malade yu garaaw nga gis li ñuy recevoir malade yi dugal biir police nga gis ni ñuy recevoir jaami yàlla yi toroxal jànni bunduxataal bëmëx ma ni dugg leen fu leen neex dugg leen ci biir dëkk bi laa wax ngeen xool miskin yi ngeen xool ñi néew doole ngeen xool ñi nga xam ne amuñu fi ñu wéeru naka leen jaamu yàlla yi di def kon yërmande moo jeex ci kaw suuf te yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam waxoon na ne irhamu man fil ard ngalla waaye yërëm leen ñi ci suuf su ngeen bëggee waa asamaan yërëm leen asamaan ku fa nekk borom bi tabaraka wa taala kon ñun suñu yërëmante suñu biir yàlla daan ñuy yërëm bu ñu dëgëralee jafeel dëgëral taral yàlla taral dëgëral comme rek ni mu amee néegi kenn du dimbali lu dul koo am intérêt kenn dërëmam du dugg lu dul foo yaakaar ñu tagg la foo yaakaar ñu ne la yaay doomu diw da ngay gis ku bàyyi ay mbokkam yoo xam ne du ñu añ du ñu reer mu taxaw ci télé bi di maye ay millions ak i milliards yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam nee na laysa minna man baata shabaan wa jaaruhu jaaya bokkul ci ñun bokkul ci islam bi bokkul ci diina ji waa ji yonent bi di wax yonent bi nee na xawma ko xamuma ñu ne yonent bi koo kan la mu ne ku dëkk ak nit nga denc sa dépasse suba te mu wóor la ne moom añul tey yonent bi nee na yow bokkoo ci jullit yi mbokk yi yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam nee na yërmande suñ koy wax mooy arrahmatul am yërmande bu mat sëkk ndax islam moo ko santaane bi tarahumil am islam nee na nañu yërëmante nañu ëmbal nit ñi yërmande islam sax dafa def ngëm yàlla gu mat sëkk nekk ci yërmande yonent bi nee na ku amul yërmande sa ngëm yàlla matul mu ne lan tu'minu hatta tarahamu du ngeen mën a gëm yàlla mukk ci àdduna lu dul ngeen yërëmante yonte yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam waaye sahaaba yi laaj ko ne ko yonent bi ñun ñëpp am yërmande mu ne du fu ngeen koy natt du fu ngeen ko natt de weesu na foofu innahu laysa bi rahmati ahadikum saahibuhu nekkul kenn ci yéen rek nu mu yërëmee soxnaam doomam papaam yaayam bëgg a tënk yërmande googu foofu ni ngay yërëme ñooñu noonu ngay yërëme addina bi yëpp ndeysaan sallallahu alayhi wa sallam keroog bi ko yàlla ne dama laa yónni nga nekk yërmande keroog la takku laxasaayu moog sahabatul kiram ñu ne ñoom rus nañ nit ñi di nekk ci lëndëm di réer di dee di dem safara loolu mooy yërmande bu njëkk mooy ñu fexe yërëm jaamu yàlla yi génne leen ci sirk yi ñu nekkee génne leen ci bidaa yi génne leen ci réer yóbbu leen ci yërmande yàlla gu yaatu gi te mooy aljanna te mooy firdaws ajal ayuhal ahibba yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam mu ngi ñuy nettali ginnaaw ba mu waxee ne xataa melantaan yi di dox ci kaw suuf xataa sindax yi xataa xaj yi soo leen yërëmee da ngay dugg aljanna yonte yàlla muhammad nee na benn waaye ngi ni doon dox ci kaw suuf baynama rajulun yamsi bi tariq benn waaye ngi ni doon dox ci yoon ishtadda alayhi atash yàlla def mu daal di mar naan mu daal di wàcc ci benn xur ci xur bi mu fekk fa teen waa ji daal di naan ba mandi ba mu yéeg xur mi mu dajee xaj bu mar naan bay mar xeer yi ak làmmiñam di yalkat waa ji comprendre ci xelam ne li ma daloon daal moo dal xaj bi mu daal di dellu ca teen ba mu simmi maraakiis yi mu soloon mu tànq ndox ci baag bi mu daal di may xaj bi xaj bi naan bi xaj bi naanee ba màndi waa ji daal di sant yàlla yàlla daal di koy jéggal ay bakkaaram xaj la waa ji jox mu naan xaj kon ku jox jullit mu naan foo jëm ku jox jullit mu naan laa wax kon ku jox jullit mu lekk ku solal jullit ku jox jullit fu mu dëkk ku dimbali ab jullit inna allaha fi awni al abd maa kaana al abdu fi awni axi yàllaa ngi dimbali jaam feek jaam baa ngi taxaw di dimbali mbokkam benn waay boo xam ne dafa nekk ci sukuraat kenn ci saxaaba yonent bi ñu dégg mu wax ñetti baat yaa layta kaana baida yaa layta kaana jadida yaa layta kaana kaamila ñetti baat aka neexoon mu sori aka neexoon mu jege aka neexoon mu mat sahaaba yi ne ko yaa ñuy jaaxal de mbaa do nga mettitu sukuraat bi daf laa jàpp ba ngay perdre connaissance ngay waxtu mu ne déedéet da ngeen yaakaar ne damay waxtu ñu ne waaw mu ne lan laa wax ñu ne wax nga aka neexoon mu mat aka neexoon muy lu sori aka neexoon muy lu bees mu ne dañ maa woon sama kër aljanna ñu ne ma lenn dong lañ la ko joxee benn bis dafa am benn waay bu réeroon jaaxle mu ñëw sa kër am lu mu doon laajte nga génn ànd ak moom ba won ko fi mu soxla woon kër googu la la yàlla faye mi ngi nii mu ne loolu ma doxoon soriwul de ñaari mètre rek laa doxoon yàlla fay ma ci benn pale ma ne aka neexoon mu sori yaa layta kaana baida kon sori woon lan laay am ñu ne aka neexoon mu bees nag mu ne damaa mës a gis ku rafle ma ñëw ci sama armoire ma xool yëre yi bi ci tane ma daal di jël jox ko te boobu dafa fënaxoon sax mu ne ci biir aljanna ba ma duggee ñu tëral ma benn armoire bu fees dell ak ay yére aljanna ma ne aka neexoon muy yére bu bees comme yére bu màgget laa joxe am lii su yére bi beesoon lan laay am ñu ne aka neexoon muy lu mat nag mu ne waaju xiif laa joxoon daggitu mburu boo xam ne moom laa waroon ndogoo ñu daal di may defal benn puur ci biir aljanna ne moom mburu rek la lay defal ngay lekk mu ne aka neexoon muy kilo ixwatal iman foog ñu delluwaat ci sunu diine ñu xam ne diine ji ñu am amul fenn ci kaw suuf ñun ñoo yor diine yërmande ñoo yor diiney barke ñoo yor diiney xéewal ñoo yor diiney sutura su fekkoon ne dégg nañ waxu yonent yàlla muhammad bu fekkoon déggal nañ sunu boroom aqulu ma tasmaun wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwa alghafuru rahim alhamdulillahi wahda wala na'budu ghayra مخلصين له الدين ولو كره الكافرون يقول الحبيب مصطفى صلى الله عليه وسلم هذا الحديث يرويه التميم الداري كنا جلوس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أقبل بعير يعدو حتى وقف على حامة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فقال الرسول أيها البعير أسكن فإن تك صادقا فلك صدقك وإن تكن كاذبا فعليك كذبك كذبك مع أن الله تعالى قد أمن آعزنا وليس بخائب لآعزنا صلى الله عليه وسلم بقي حديث بي ñuy nettali te mu bokk ci yërmande yonte yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam dafa toog di jàngal sahaaba yi sahaaba bu tudd tamimu daari te muy ku siiw ci sahaaba yi ndax moom moo gisoon dajjal moo njëkk a dugal làmp ci jàkka yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye sahaaba bi Palestine la bokk ci waa Palestine tamit mu daari nee na dañoo toog yonent bi di ñu jàngal ñu jekki-jekki rek benn gëléem fëx mam mu jóge ca àll bay daw xël yu metti ñëw romb ñu ñun ñëpp ñëw ba ci noppi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daal di mun muni yonent bi ne ko yow gëléem gi dalal bu dee yaa ngi ci dëgg di nga am dëgg bu dee yow gëléem gi da ngay fen say fen day leer sahaaba yi daal di waaru ne yonent bi قلنا يا رسول الله ما يقول هذا البعير صحابينا يرنت قلم قلم وخ فقال هذا بعير قد حم أهله بنهره وأكل لحمه فهرب منهم واستغاث بنبيكم قلم جدي أي مكم دنكو نرى الري تور درتم لك يبم سين يخي mu daal di daw ay mbokkam mu ñëw tey ci seen yonent di ko jàmbat di làqatu ci moom pour yonent bi dimbali ko balaa gaa yi di ko rey fa baynama nahnu kadhalika iz aqbala ashaabuhu yataaduun fi yonent bi di wax ak sahaaba yi rek ñu seen waxambaane yi takk seen ndigg ku nekk yor yat di fëxër fëxëri di ñëw ñiy wër gëléem gi gëléem gi ba mu leen séenee rek mu daw nëbbatu ci ginnaaw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sallallahu alayhi wa sallam xoolal koo xam ne ay rabu àll dañ daan nëbbatu ci moom tey julit yi di ko daw julit boo ne yonent ne mu ne non dafa métti ah bon sar bi da ngay waaru de foo ñu xoolaat ko jullit boo ne yonent bi nee na buggul dégg koo xam ne ay rab laa wax ay rabu àll yonent bi da daan xutba juma garabu tàndarma bu dee bu mu doon teg loxoom rek par ajjuma moom ngeen gis ajjuma bu jot imaam yi di yor ay kaan nii benn yat di ko yor foofu lañ ko jëlee yonent bi daan jël loxoom rek teg ci garab gi garab gi daa dee de boobu ñu ngi doon jublu masjidul aqsa yàlla ne yonent bi tourneel jublu màkka yonent bi ñu changé xibla bi vendredi jot yonent bi bàyyi garab gi taxaw beneen côté rek ñu dégg garab gi jooy di onk mel ne doom ju ñàkk yaayam mel ne yaay ju ñàkk doomam di onk sallallahu alayhi wa sallam ëkk gi di onk ci biir jumaa ji di yëkkat yonent bi saa sallam ne buddil leen ma ëkk gi indi ko ñu bëgg buddi ko indi ko yonent bi di ceeg ci loxoom mu ne këkk noppi sallallahu alayhi wa sallam muhammad xayru xalqillah ma xalaqa al ilahu wala tura basaran yuraka muhammadin bayna al wara ixwaani ba gaa yi ne biral ci biir jumaa ji yonent bi ne leen lan la lu ngeen di seet ñu ne ko sunu gëléem moo réer mu ngi nii sa ginnaaw taxaw yonent bi ne gëléem gi ñëw na fi di jàmbat ci yéen yéen ñu bon ngeen ndax rabu àll bi sax rab wi sax mun leen koo jox li ko yàlla jox ci yërmande yéen yéen a yées ñee yonte bi lan la gëléem gi wax mu ne amma innahu yasku ilayya fa bisa sak sakwa gëléem gaa ngi may jàmbat moo bon moo yées li mu ma wax ne moom ngeen koy def qaalu ya rasulallah maa yaqulu ñu ne gëléem gi lu mu wax mu ne innahu rubiya fi amnikum ahwalan wa kuntum tahmiluna alayhi fi safi fi sayfi إلى موادع الكلع فإذا كان الشتاء رحلتم إلى موادع الدفء nee na gëlëm gi nee na dafa dundandoog yéen yarandoog yéen nekk xale bu ndaw ci yéen di liggéey guddi ak bëccëg ngeen koy yóbbu ci tool yi muy yenu seen lu diis ci jamonoy tàngaay ngeen yóbbu ko ci place su sàngam ci jamonoy nawet ngeen yóbbu ko ci place sàngam su ngeen di tukki jël seeni sëf yépp teg ci kawam bu dégg ba ca gëlëm gi di liggéey ba gëlëm gi màggat te gëlëm gi amal na leen ay doom yu baree baree bari léegi gëlëm gi màggat amu leen lenn lu ngeen def lu dul nañ ko rey lekk ko mu nopp ñu noppalu moo tax gëlëm gi daw te gëlëm gi nee na la mu leen di liggéey yéen yépp ci tool yi da ngeen koy lekk la mu ci war a lekk sax du ngeen ko ko jox yéen yéen a yées ah fa qaalu wallahi kadalika ya rasulallah gars yi ne yonent bi wax na dëgg de gëlëm gi li mu wax lépp dëgg la ñun ñii ñoo ko def yom ci ne ma haza jazaul mamluki salih bi mawalihi yonent bi nee na ku jiite ay nit ku moom dara ku nekk patron fenn du nii mooy doxalin bi hatta xar sax ndeke boo ko jiitee du nu la neex nga def waxuma la nag ñun ay tey ay nit lañ jiite ay nit di def lu nu neex ay nit da ngay dégg sax borom kër gu ne sama foi ku lekk lekkal ku lekkal yaa xama yonent bi nee na du noonu irhamu man fil ard yërëm leen ñi ci suuf xoolal ñi lu leen yonent bi wax gëlëm gi du noonu du noonu ngeen war a jëflante ak moom fa qaalu ya rasulallah inna la nubiuhu wala nanharuhu ñu ne yonent bi jéggal ñu dootuñu ko jaay dootuñu ko rey fa qaala alayhi salatu wasalaam kazabtum yonent bi ne da ngeen di fen palaa ngeen tëral yàlla wax na ma da ngeen di fen da ngeen ma bëgg a nax mais man yàlla wax na ma lépp qad istaxaasa bikum falam tuxiisuhu gëlëm gi waxoon na leen ne baal leen ko ngeen lang wa ana ulu rahma bi bikum minkum yonent bi ne yéen maa leen gën a yey ci gëléem gi maa leen ci gën a yey fa inna allaha nazaa arrahma min qulubi almunafiqin yàlla dafa rocc ci xol ci xolu naafiq yi yërmande moo tax naa féq doo am yërmande damay ragal nag ñun réew mi ñu ëpp ci ñun bokk ci ñooñu ndax yërmande jeex na kenn dootul yërëm kenn ndeysaan fantasaru fastaraahu alayhi salaatu wassalaam yonte bi daal di koy jënd génne xaalis daal di koy jënd ci ñoom ba pare daal ne ayyuhal bair intaliq fa anta xurrun li wajhi llah yonte ne gëlëm gi demal am nga liberté doxal fu la neex ci kaw suuf kenn du la rey ku dul yàlla am nga liberté goreel naa la ndeysaan gëléem gi daal di ñëw ba ci nopp yonent bi faraaga ala hammati rasul fa qaala alayhi salatu wassalaam amin summa raaga fa qaala amin summa raaga fa qaala amin summa raaga rabi fa baka alayhi salatu wassalaam gëléem gi ñëw ba ci nopp yonent bi daal di ngun nguni yonent bi ne amin mu ngun nguni waat yonent ne amin mu ngun nguni waat yonent ne amin ñeenteelu yoon gëléem gi bi mu ngun ngunee yonent bi daa jooy sallallahu alayhi wa sallam sahaaba yi ne yonent bi tey de moom wax dëgg yàlla dof nañ complètement lii ñu gis musuñu ko gis gëlëm gi lu mu wax mu ne gëlëm gi nee na ni ma dalale xelam ba kenn dootu ko def lu bon yàlla na yàlla dalal noonu xeetu lislaam ba ñëpp dugg aljanna yonent ne amin allahu akbar ñu ne yonent bi ñaareelu amin bi mu ne gëlëm gi nee na ni ma ni ma ko yërëmee yàlla na yàlla yërëm noonu xeetu lislaam yonent ne amin ñu ne yonent bi ñeenteel bi mu ne yonent bi gëlëm gi nee na yal na yàlla mutal xeesu lislaam ci safara yonent ne amin ñu ne yonent bi ñeenteel bi nag mu ne yàlla li tax ma jooy yonent bi gëlëm gi dafa ñaan ne yal na yàlla musal jullit ñi ñuy reyante seen biir di tuurante deret yonent daal di noppi ndax ñaan boobu yàlla daf ko koo tere wara yonent bi daal di jooy xoolal gëlëm di ñaan yonent naan amin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mbokk yi yonent bi jooy jooy yu métti fa inna hadihi alxisaal mu ne melokaan bu mujj bi gëlëm gi ñaan ma jooy saaltu rabbi fa aataaniyaha wa manaani hadihi damaa ñaan yàlla julit yàlla nañ yërëmante seen biir di bañ reyante di bañ di tuurante deret yàlla ne ma bul ñaan parce que boo ko ñaanee yàlla ko def julit yi dañuy reyante ji gis ngeen tey julit yi rek ñooy reyante da ngay gis ay attentat ci biir jàkk a ñëwaa ñu ne noonu ñi ay mushrik lañ dóor attentat kuy julli ci biir jàkk ñu dóor ñu dóor dem ci marché taal ay bomb ay kamikaze la ilaha illa allah yal nañ yàlla woon dëgg wërsëgal ñu topp yal nañ yàlla woon neen mu wërsëgal ñu bàyyi ko aqulu ma tasmaun wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiru innahu wal ghafur rahim اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا على اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا على اجتنابه اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك اللهم فنسألك أن تردنا على دينك مردا جميلا اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب القبر اللهم صل وسلم على عبدك وحبيبك محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وأقم السلام